Tarsal ma ngi leen di nuyu si jàmm ak salaam ma ngi leen di souhaiter un bon vendredi di leen wax juma mubarak jàmm ak salaam si ñëpp ci Sénégal bi yëpp di jégalu na ci gëj gise bi ma ne ko di jégalu ci gëj a dugg bi live bi nekkoon ci ay yitte rek ma ne ko nekkoon ci ay yitte di dox rek pour Sénégal ma ne ko nekk ci ay yitte dox sa Sénégal dugg ci biir tunnel yi di la jënd sama bopp di la jënd Sénégal <laughs> tout en espérant que yéen a si ak salaam ma ah? ne ko tout en espérant que yéen a ngi si ak salaam tey sama gars yi dama ñëw pour ñu waxtaan tuuti rek ci li nga xam ne moo xew ci actualité Sénégal ma ne ko Sénégal rek la ñuy waxtaanee saa su nekk. li nga xam ne moo fi am semaine bi yëpp di xew sama digganteeg sama oh, président su ma sama oh, président ñëpp xam nañ le président Ousmane Sonko wax ak. Ah, ki fi ne jamono ji ak tournée bi nga xam ne moom la def biir Sédhiou ma ne ko tournée bi nga xam ne ñëpp gis teg nañ seen bët moom la def biir Sédhiou ñu xam lépp lu mu demee nag xam nga li olof ngay naan xam mbaja xam mbaca ton WhatsApp un bon souvent tout ok d'accord d'accord d'accord ok je comprends dégg naa li nga wax Matar Sall Matar Sall dégg naa la ok y a sama whatsapp nga bëgg jaay gis lépp nu mu fa demee xam nu mu fa demee waaye lu ni ma leen ko waxee lu olof xam mbaca xam mbaca la ñu def gis nga booy woote mbooloo booy woote mbooloo mbooloo mi génn ma dafay leer waaye mbooloo bi nga xam ne moom lañu gis biir Sédhiou keroo dëgg la nag ba mbooloo ma ne tëll nee <laughs> woote boobu dafa spontané laa la wax te leer nañ man nga foofu moom damay ruube rek woote boobu bàyyi leen ma tooñ ko tuuti woote day spontané voilà ñun bu ñu génnee à l'improviste sax xam ne yëgaluñu sénégalais rek benn nit moo naan am sikki sàkk ñu dem ba jëmbi jamono yëfi yi ci ay loxo ay activistes soi-disant ay activistes xaw ma républicain lañ tuddee seen bopp léegi xaw ma ñu dem ba histoire bi dafa dem ba yegg ci fruit bu ngeen ma suivre di ngeen comprendre histoire bi dafa dem ba yegg ci ci ci silaam nuyu naa la Yusufa silaam ñeen kontoom histoire bi dafa dem ba yegg ci ay fruit maanaam dafa dem ba ba bañu ba ñu ba ñu tabbee yi nga xamné ñoo fété ca kaw ay nit yo xamné dañoo yor alal àdduna ay nit yo xamné dañu amoon dans contre le président Ousmane Sonko ndax daf leen fi mosoon a jiiñ affaire 94 milliards. loolu wokkuñu ko batay lolu loolu ça les est resté à la gorge ñu bëgg a fay ñu bëgg a té ñamaw ñu le président Ousmane Sonko defuñu affaire góore xam nga na góore ñu préférer jaar ci ak gone pour tilimal le président Ousmane Sonko. yow ñeme wala président Ousmane Sonko jàkkaarloo moom face à face moom ndem moo la yoole moo la yoole léegi sa naqaru xol boobu yow foog nga am koo ko jaarale pour mën a fayu kon yow doo góor sa góore des na ñu ñëw si ba foofu ñu pàdd leen ñu daanu ñoom pom ñëw déggulee ma de ñoom pom pom tëllee fële daa di ñëw nga mën a ñoom pom daal di ñëw fële may leen ma cinq minutes ñoom pom daal di jóge fële daal di ñëw pom moom wax naa wax saa yu xëyee toog su ma nee pom ñi seetaan ñi may ñi may seetaan xam nañu baax ñan laay waxal ñoom pom kooku ñu tuddee ñetti pom ya moom mu daal di ñëw ñoom fruit yegg si pom daal di egg si wax a wax a wax a wax a wax wax jëm kaw wax jëm suuf fen fen fen fen fen nara nara nara nara nara xoola amuñu gain cause saa yi ñu xëy di gën a nërmeelu saa yi ñu xëree ay tur di ay tur di gën a feeñ ñu ne déeta waaye am koo xam ne nee na moom dafa këree groupe ñu koy wax kodaas xaw ma kodaas xaw ma kodaas mooy kooku noonu ñàkk ko pom ñëw pom pom ñëw na ñaxu koko ñëw na ba mooy ñaxu koko nag war ngeen xam ki may waxal mooy borom greffage ñaxu koko bi mooy greffage bi mel ni ñaxu ko kooku war ngeen koo xam kooku tam ñëw na def na mëninam dugal na tànk dugal loxo kooku wax na sa daal dinañ réll ci suuf ñax maamam ci suuf sénégalais ñëpp di ko gis wax na ba ne ndell ci suuf sénégalais ñëpp di ko gis nee na moom du bari président Ousmane Sonko kon pom jaar na ko jaar na ñaxu ko jaar na pom ak ko jaar nañ pomme sa xaw na civilisé ma ne ko pomme sa xaw na civilisé xam nga boo invité say gan bu yàgg nga jënd pomme banana orange affaire yooyu daal di on def fruit def salade de fruit mbaa nga def sa jus de pomme yooyu yëpp ba tey jàll ñu ne déeta waaye koko ñëw na ñaxu koko daal di naeg si koko ba tey sa am na am na am na njëriñ ndax kooko boo ko râpee mun nga see am sa gâteau mun nga see am sa xaw ma sa sa ko ko mun ngaa mën ngaa def sa huile de coco qui est la peau mën na ko de coco qui est très bon yooyu yëpp mën na nekk ba tey sax mën nañ toléré ñaxu ko ko ko ba tey mën nañ leen toléré waaye ñu dem ba dossier bi jamono ji man dossier bi fu mu egg jamono ji <laughs> dossier bi fu mu yegg jamono ji moo suufee jamais j'aurais cru que dossier bi dina wàcc dina wàcc ba egg si niveau bi ah non non non yëg ay yëgati eh, waat leen niveau bi de niveau bi wàcc naa dossier bi fu mu nekk nii. ña ko yor dañ ko dossier bi bu xool mbal dong ko dese egg mbal bi moo dese dossier bi dañoo dem ba dossier bi ba mu jéggee pom jéggi ko ko jéggi ñaxu ko ko jéggi pom jéggi jéggi nu tudd borom kee borom laa défense dossier bi fu ne la jaar dossier bi jaar na fu ne de loxo en loxo de loxo en loxo ah ku ne yor ndox bi ex mannequin bi xaw ma ex xaw ma naka euh, nu mu tudd euh, euh, ka doon liggéey ci librairie ba pare kooku tam yoru na fi dossier bi soxo soxo fi soxo soxo soxo fi ba jàpp doomu jàmbur ji dóor bu muy bëgg a dee <laughs> jàpp doomu jàmbur ji dóor ko bu muy bëgg a dee yaa ngi dégg ñu ne déeta waaye léegi nee nañ kooku nee na soxo soxo moom nee na ndaw si dafa dof ndaw si wérul ba tey dossier baa ngi foofu waaye man dossier bi fu mu tàbbi jamono ji may dégg ay waxu 10 millions ki ay waxu xawma lan na ma fay sama 10 millions man détail yooyu sax ñu si dugg parce que daf may tardel naa parce que daf may tardel man dama sa mënta loolu mënta nekk dañ nekk di bëgg delloo ñi ñi ginnaaw te xam na ne ñun fu nekk nii xam ne gis nañ ne patriote yi dañoo focus sur 2024 patriote yaa ngi liggéey lu am solo patriote yaa ngi si lu am fu la am fayda faala leen nan moo tax sax ngeen gëj ma gis patriote yi ñu gis si leneen loo xam ne uti na ay waxi kasaw-kasaw ndax dossier Adji Sarr moom c'est classé dañ koo teg de côté waaye dossier bi ci loxo duñ ko mujjeel man moo a naqari nañ leen waxante dëgg dossier bi ci fu mu mujjee moo ma naqari dossier bi léegi ci ay ngeer la nekk buñ demee ba dossier bi jéggi pop jéggi kooku ñàkk ko ko ah jéggi jéggi borom la défense ak ak ak xaw ma nu mu tudd porte de l'Italie kooku doon jaabal ci mbeddu Paris rek naan xool leen Paris xool leen nuage yi dossier bi jaar na foofu yëpp ñu ne dégg dossier bi jaar ci ay soxo soxo soxo soxo soxo soxo soxo nee na Adji Sarr dafa dof yaa ngi man waxuma loolu yëpp waaye dossier bi jamono ji fi mu mujjee <laughs> yaa joono Kolda topp accam yow ma ne la dossier bi fu mujjee xam ngeen dossier bi fu mujjee ku xam lii lan la dossier Adji Sarr fii la mujjee muy sama tey ku xam lii lan la gars yi seetaan wax leen ma lii lan la bindal leen ma lii lan la kan moo xam lii ku xam lii lan la ku xam lii lan la rek dama ko wax non sénégalais du ngeen mën a xamu leen lii nag xool leen lii bu baax xool leen xool leen xam nañu leen lii <laughs> dossier bi si loxo ñii la mujjee dossier bi instant yi dossier bi si loxo lii la mujjee ci ngeer ngeer dossier bi nga xam ne ca kaw lañ ko ajoon ku ne dugal ci tànk dugal ci loxo ku ne bëgg cee dugg ku ne bëgg cee am succès ku ne bëgg cee am lu leen neex ay tampeeg tampaani ñoom ñëpp ñu ngi ci biir sonn naa nag sonn ma ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñoom pom ñoom new ñoom banaana ñoom ñaxu ko ko ñaxu ko ko ba mooy borom California moom greffage bi comme ñaxu ko ko kenn xamul lu muy loolu yaa dégg dossier bi ñoo mujjee ci ngeer ak ñu muy dute dossier bi yegg si na ci ngeer ci ngeer la dossier bi toll dama ne ni dama leen ni namu naa la waaye ni ko bindee moo baaxul danga ma ne nammuñu la de waaw kon namm nga ma kon baax na boo kat balde balde baax naa accanam xàkke ana ni ma ne ko nam xàkke dossier bi ci ngeer la mujj te xam naa bu ñu demee ba ca kanam ci sexew sexaw lay mujjee ci sexaw <laughs> dossier bi ci sexaw lay mujj ah yéen a torox yéen a torox yéen a alku lii day won ne da ngeen alku ñu nekk ci biir dossier bi yéen ñëpp yéen a alku xaw ma dañ koy def pour leurrer nit ñi pour nit ñi virer. di wax ci ñoom xaw ma ndax loolu leen ci dugal xaw ma la moo leen ci dugal waaye dossier bi tàbbi na ci loxoy ngeer ngeer ci ngeer nañ toll ah ngeer nag amaan na day faj faju ji leen nag ngeer gi nag jël leen ko ngeen ci faju si lu baax la dégg naa baax na ci dindi cat baax na ci coono baax na ci sëkkat war ngeen koo naan nag ñëpp na nañ ko séddal ñëpp képp koo xam ne ibi woon front rek contre le président Ousmane Sonko naan da ngay défendre Adji Sarr di man défendre seen bopp ngeen doon intérêt seen bopp ngeen doon défendre woy ma ne ko seen intérêt crypto perso ngeen doon défendre léegi nag dossier baa ngi ci ngeer nag léegi nag xam nga lu ma leen digal naan leen ngeer yéen ñooñu ñëpp dugal leen seen loxo si dossier bi naan leen ngeer te ngeen dem tëdd xam ne pare ngeen ma ko ma dégg ko yéey mu naan waa Pastef ñu may woo yow Pastef dañ laa faale dossier bi nga xam ne dafa vide vide vide vide vide ah dossier bi nga xam ne liir sa boo ko joxee mu àtte ko ko si en seconde mu jeex amatul ngeen lu ngeen wax tardé ngeen futi ngeen alku ngeen yàlla yàlla rëbb na leen ndax seeni fen yu rëy xam nga ne dossier bu jógee ba ci kaw di wàcc ba ci ñoom pom ba ci ñoom new ba ci ñoom koko ah dossier bi mujj ci ngeer toog leen ngeen xaar dute baa ngi ñëw dute Gàmbi dina ñëw gungun dina ñëw ak sexew sexew ngeen di mujje ci sexew ngeen di mujje ma ne ko ci sexew ngeen di mujje sama gars yi dama am rendez-vous moo tax waaye tey tey daa doon toog fi ñu reetaan ko fi ba suba man ko daa doon toog fi ñu reetaan ko ba fii daal laa fii fii la dossier bi toll partagé leen laaj mu dossier bi fu mu nekk nii fii la tool ci loxoy ngeer la nekk ngeer a ngi nii nag dossier bi nag bu ne aju woon ca kaw ñëpp di ko laam-laame ñu yóbbu ko ñu ko jaxase ñoo opinion bi fu ñu dugg fa duñu fenal tey nag dëgg bi leer na dossier bi fii la mujj ci ngeer ku xamul ngeer ngeer a ngi nii dossier bi ci ay loxo loxoy ngeer la mujj te xam naa ci dute lay mujje ci dute lay mujje ak dute Gàmbi ak si xew fa lay mujj dossier baa ngi nii nag ak sepp ak ñoom sepp dossier baa ngi nii fa la mujj balaa teer ma ne ko balaa teer cible yëpp daanu nañu ma ne ko cible yëpp daan nañu amatul ngeen lu ngeen wax may nañu suñu jàmm ñun dañoo ne focus 2024 sama gars yi focus leen 2024 ñu bàyyi dossier bi ci ñoom ngeer dégg maa ngi leen di bàyyi rek di leen ñaanal jàmm ak salaam ma ne ko di leen ñaanal jàmm ak salaam di wax ne focus rek bu leen tàyyi bu leen tàyyi ku am sa ñetti nit sax sa waa kër ma ne ku am sa ñetti nit sa ñaari nit bu leen xeeb dara sa ñetti sa ñaari nit ñëpp laa bu leen xeeb toq-toq moo gën yuréet ma ne ko toq-toq moo jóg yuréet ba ñuy départ dañoo ne toq-toq la ñu woon léegi nag yuréet lañ def dañoo takkal voilà kon nag borom ñu ñu ne borom caq du xeexe borom baati neen Ousmane Sonko nee na doo yéeg ba ci kaw étage ngay yéeg di yéeg escalier di a yéeg di avancé gis koo xam ne mu nga toll ca kaw di de xàjje di aaw di xaaweel nga naan da nga koy jéem a capté wala da nga koy jéem a sóobi da ngay ànd ak daanu ba ci suuf kon nag du ñu yéeg ba sore nag di wàccaat nañ leen bàyyi comme que dossier bi moom wàcc na ba ci ngeer yegsi na ba ci ngeer ñu ngi xaar nag xoolal man ngi xaar bu mu eggee ci sexew xew wala dute gàmm dégg nekk leen si jàmm ak salaam bon vendredi ñaanal ñëpp jàmm ak salaam jàmm ak salaam si biir Sénégal ca kaw ca kanam.